sëriñ ñu am thème central wax élégance divine wax principe humain une créature digne de son créateur baatu digne boobu ndax nangu la walla ndax niru la comme ni moo ci ko waxoon wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun nga ne suñu borom li muy xaare mooy ñu niru ko créature naka lay def ba digne ci kanamu créateur bi ko bi ko bi ko bind performance mooy course bi ñu doon waxtaanee sànq weesuwul li parce que diñ boobu du problème mu gëm naa gëwuma du problème mu loolu yëpp parce que yooyu yëpp ay kii la parce que ba nga nangoo ni créature am nga yooyu du duggaale na ci yoon mais fii dignité bi ci biir performance bi nga def ci course bi la day mel ni nga ne buñ ne woon Grand Prix de Dakar ne am na dix courses première course bi euh, am na trente participant pour mën a qualifier deuxième phase bi pour mën a dem ci deuxième course bi il faut nga dugg ci top quinze foofu ci exemple boobu top 15 bi ils sont dignes boo demee ci deuxième course bi ñu leen léegi top 10 ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite yàlla it daanaka presque mën nga jël exemple boobu sax parce que moom it ay cycle la ay cycle lay natte di natte di segg di segg di segg di segg ba daje ki mu soxla. Euh, mu mel ni verticalité bi mun nañ ko misaalee contrat bu dox diggante yàlla ak borom est-ce que jàmm mën na jëfandikoo nu tax contrat bi kaddu daal di résilier wu est-ce que contrat bi dox si diggante jàmm ak borom bi. mën nañ toll foo xam ne contrat bi dañ koy dañ koy mettre fin. Ah, bien sûr mais ah góor gi mës na jàngale ne balu àq yàlla quota la quota ndax yàlla ñàkkul fayda boo dëkkee di ko tooñ baal ma dëkkee di ko tooñ ne ko baal ma am na foo xam ne day naan yow sama yoon nekkatul ci yow di nga xëy nag di baalu yaakaar ne yaa ngi ci yaa yaa ci nekk fekk moom jéppi na la yàgg na contrat bi dagg na ko à partir de là nag la la ciy fekk nga dul xam na kuy demee mais bien sûr contrat bi mën na mën na résilier à tout moment mais dafay basé nag léegi ci yow li nga jëflante ak moom mais nag nit résilier contrat bi mën na nekk dafa lu tax yàlla jéppi la rek possibilité wu bindaat contrat bi am na bu bees. ah tout dépend ci sévérité wu rupture précédente bi ndax yàlla lu tëj lépp wax ji nag mooy yitteeg ak jomo jotaat ci loolu foofu nag la wax dina la nekk ndax nag ah li nga wane ni yitteelu la première fois bi boo yaakaaree ne maanaam noonu lay yombee deuxième fois bi du demee noonu te mooy li li li ma dégg benn waay wax ko. mu ne école bi dàq ci àdduna te gën fi efficace gën fi yomb mu éréeru jàmbur ñum tey jàmb mooy école bi gën ci àdduna parce que di nga di nga fa mën a jànge leçon boo xam ne yow doo ci fay dara mu ne waaye école bi yées ci àdduna gën fi dangereux gën fi coûteux mooy bàyyi fi éréeru jàmbur def sa erreuru bopp ndax bàyyi nga fi école bi gën ba pare dem defi même même même erreur bi fay ci pour soog a mën a jàng la même leçon la toll. ci verticalité bi ba tey danga waxoon ne dina am lu jóge ci jaam bi jëm ci borom bi ak lu jóge ci borom bi jëm ci jaam bi ñaari mouvement yooyu noonu li li li koy composé lan waaw nit ki jël jotam jël ngëmam jël jaamoom jëmale ci yàlla yàlla jël yërmandeem jël yaatoom jël euh, alalam jëmale ci nit li muy verticalité bi essentiellement du ma ne échange sax mais euh, te de bonne foi la ndax bu fekkee ci verticalité lañ yam miineel amu fa miineel amu fa yàlla yàlla la jaam jaam jaam li mu mën def mooy yëfi jaam yàlla li ma def moo yëfi yàlla te kon jaam li mu am lay jox boroomam yàlla li mu nangoo joxe lay joxe euh, ci ouverture bi ci compilation bi ñu def dañ ci dégg sa góor gi wax ñaari baat wax ni sunu borom ci ñaari tableau lay agiré benn bi mooy la lawxul mahfuz nga xamante ni c'est définitif lu mu fa xas def c'est définitif beneen bi tes mu wax alwaaxul mahwi wal isbaat nga xamante ni c'est provisoire à titre provisoire mën nañ ko tuddee noonu léegi nag ñuy laaj ndax noonu muy agiré ci diggante ñaari tableau yooyu ndax jaam bi moom mën na am ci potentialité yi dem ba jëlee mbir loo xamante ni c'est définitif suñu borom dogal na ko ba noppi waaye ci yitteem ak verticalité bi nga wax léegi moom sàmm na diggante boobu ba mën koo yóbbu maanaam changer décision boobu. waaw exemple bi gën a dëppoog loolu yaakaar naa góor gi moo fi jàngale woon ci yowmal xiyaam ba ñëpp taxaw yàlla nag ak na mu ñëwee ak ni présence bi di diisee ak ni grade yi di kawe mu wóor la ni kii dafa ñëw pour jëflanteeg nit ñi ci ne mu toll. pourtant décidé na décidé na ko ba pare lu ko ci génne Adam jaar fi ñu bu ñu bule ko Noox jaar fi ñu bule ko ainsi de suite ainsi de suite mais kan moo xam ni kan moo xàmmee ni foofu wax wax waru fa yàlla mi ñëw en tant que yàlla delloo ko li mu moom bul fi nekk di wax su joota kenn ko xàmmee muy yonent bi jeex na jeex na wax ji nag mooy du yomb du yomb àgg foofu ak sa yaa ak sa diggante ak sa borom du lu yomb c'est très difficile mais c'est quand possible ndax mbaaxu yàlla ëpp na loolu. mën nañu gis ci évolution wu nit ba ñu mën a tudd baatu élégance humaine. l'élégance est et sera toujours divine. élégance boo gis ak nu mu mënti mel ak nu mu la mënti niru ci yàlla la mën a jóge dama koy waxtaan ak mbokk yi fan ci ginnaaw mu nit bu Serigne Cheikh di wax jë se violence baat bi gën na sore li ko nit ñuy foog lan moo tax baatu pouvoir dañ ko yamale ci mën-mën ak am-am alors que yamul foofu pouvoir boo gis ci yàlla lay jóge ak bu mu mënti doon ci yàlla lay jóge mais jot pouvoir la wér pouvoir la yaatu pouvoir la tal pouvoir la dégg pouvoir la yëg pouvoir la ainsi de suite naaci naaci yooyu yëpp yàlla di ko naaj ndax di seet mbindeef gi est-ce que ñoo ngi koy bàyyi xel est-ce ñoo ngi koy seet est-ce que ñoo ngi ko ciy delloo jukkal loolu day dafa dëppoo sax